docteur Assane Diouf euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. docteur Assane auditeur ak auditrice bu Rewmi FM yëpp. voilà docteur Assane Diouf nga nekk président bu association euh, des internes et anciens internes des hôpitaux tey jii dañ lay laaj d'abord lan mooy médecin interne lan moo ko wutelee ak yeneen médecin yi. waaw bu ñuy wax médecin interne déjà day regrouper ay médecins ay pharmaciens ak ay psychiatres ñi nga xam ne par concours lañ leen recruter ministère de la santé nag mooy organiser concours léegi ñi ñuy recruter ñooñu ay étudiants lañ yoo xam ne dañ mun jàng médecine pharmacie wala bon nekk faculté de médecine en tout cas soit département de pharmacie wala département de médecine léegi ñi ñuy recruter ñooñu ñooñu la ñuy woowee ay interne médecin interne ou pharmacien interne wala psychiatre donc ñetti parti la mm-hmm. ñooñu ñooy médecin interne bu ñu leen recruter nag. Mm-hmm. dañuy dem hôpital fa lañ leen di nekk fa lañ leen di déployer fa la ñuy liggéeyee ñeent ba juróomi at yoo xam ne dañuy nekk en formation maintenant avantage bi concours bi mooy. waaw ñi koy réussir bu ñu réussir concours bi directement dañuy commencé seen spécialisation donc du dérogation bu interne yi am la. dès que ñu réussir concours dañuy commencer spécialisation duñu xaar ba soutenir thèse doctorat door a commencer spécialisation loolu day tax ñu am ay spécialistes yu jeunes. Mhm. en plus day permettre former futurs universitaires futurs chercheurs ndax ci biir formation interne dañ lay won dañ lay jàngal nan ngay def ban yoon ngay jaar ba nekk professeur université genre école la buy former ay chercheurs ak ay professeur d'université Euh, tey jii kon interne euh, médecin interne mën nañ jàpp ni ñoom ñoo gën a jege malaat yi yeneen médecin yi waaw wala déet. waa en tout cas médecin interne moom jege na malaat lool ndax buñ nee interne comme ni ko tur bi waxee ci biir hôpital lay loge wala bu logewul ci biir hôpital warul sore. hôpital bi ak hôpital donc loolu pour mu mën a disponible nekk ak malade bi ba yenn heures yi. Mhm. bu ko defee fu muy ñi comme fu muy ñibbi du sori bu fekkee si biir hôpital bi la dëkk wala mu dëkk à côté dina mën a disponible pour malade bi. maanaam daal mooy médecin bi nga def ay garde hôpital yu bëri fii interne yi ñoom ñooy def ñoom ñooy def garde yi maanaam ñoom ñooy fanaan guddi gi di toppatoo maladie kon ñoo ëpp ñuy fanaan ci hôpitaux yi ay médecin interne lañ interne lañ waaw mais est-ce que médecin interne yi euh, euh, docteur Assane Diouf doy nañu Sénégal médecin interne yi est-ce que lim bi ñu ci am doy na wala doyul waaw lim lim biñ ci am doyul parce que boo xoolee concours bi chaque année bu dee médecine dinañ am plus de cinq cent candidats yi présenté au concours bi quarante cinq wala maximum cinquante personnes lañ ciy jël bu dee pharmacie ñi présenté wu mën nañ mat cent mais quinze personnes lañ siy jël chaque année pour pharmacie pour psychiatrie mën na varier mën na nekk une dizaine daal lay nekk kon boo xoolee chaque année soixante huit interne environ la ñuy recruter Sénégal ba mu médecin interne. mais est-ce que est-ce ci ci région yi xam naa peut-être Dakar mooy tane mais est-ce que si région yi euh, dina ñuy faral di am ay médecin interne kom nga dem Saint-Louis wala Kaolack wala Ziguinchor voilà waaw boo xoolee bu njëkk parce que concours bi mu ngi am depuis les années euh, euh, depuis année indépendance depuis vers 1960 ci la concours bi commencé am kon du concours boo xam ne bu récent lu yàgg la ba muy am jamono yooyu internat des hôpitaux de Dakar lañ doon wax mais léegi. Hmm. comme dëkk bi dafay màgg yenn régions yi ñu fay tabax ay hôpital ak yooyu. waaw léegi dem nañ ba élargir ko mu nekk internat des hôpitaux du Sénégal dañoo wax ne interne fépp fu mu nekk. Hmm. dafa war a am professeur université bu koy former. Hmm. ndax comme ni ma ko waxee sànq internat genre école la buy former futur professeur d'université comme yenn région yi amul woon ay professeurs d'université moo taxoon. oui amul woon ay interne ci régions yi mais léegi gis nañ ne yenn yenn régions yi ñu ngi am ay université mhm. yoo xam ne kii nañ leen lié nañ leen ak ay hôpital ñu ngi commencé am ay interne. ñu ngi commencé di am tuuti tuuti interne. waaw euh, mais ñi si ëpp dakaar lañ nekk na voilà euh, euh, docteur Assane Diouf ñu laaj la si fermeture hôpital Le Dantec am na nañ ko depuis le 15 août ne dañ koy defaraat am na sax pàcc bu ñu jaay pour defaraat hôpital bi en tout cas ci information yi nga xam ne moom la autorité yi fësal yow loolu da nga si d'accord nga si waaw wala déet en tant que koo xam ne yaa ngi doon liggéeyee foofu ci hôpital la Dantec. waaw bu dee association bi nag ñun jëlaguñ jëluñu si position bu claire en tout cas. Mhm. man nag ndaw laa rek dañ ma maa yebal ma nekk seen représentant mais lu may wax si wàllum fermeture ak jaay bi loolu man la engagé personnellement. Mhm. mooy que sama xalaat personnel mooy médecine dafay màgg. Euh, lu ñuy gën di dem ay spécialités yu bees di judd. xam nga il y a quelques années xalaatuñu woon ne dinañ soxla hôpital d'enfant hôpital boo xam ne xale kese lay faj. waaye dem nañ ba gis ne lii soxla la bu bu nekk si dëkk bi bu ñu war a def ñu def ko fii ay années yi ci kanam dinañ dem ba gis ne war nañ ubbiwaat beneen spécialité beneen sous spécialité si biir lool li liñ ñu permettre ñu mën a réaliser projet yooyu mooy réserve yi ñuy am si hôpital yi léegi nag lii njiitu réew mi jël dogal ne day jaay xaaj hôpital bi loolu dina indi ay rëkk ndax gis nañ pandémie covid 19 bi mu amee hôpital yi dem nañ ba amatuñu fu ñu dugal malade dañoo obligé jël malade di leen entrer ci ay hôtel loolu mu nekkoon situation boo xam ne bu metti la woon mm-hmm. ndax bi moo doon jël xaalisam di fay hôtel yi pour mën a entrer yi foofu noonu mm-hmm. léegi bu demee ci ak ay at pandémie bi ñu dal dalaat ñu ñu dem ba amatuñu fu ñu def espace dinañ mel ni lu xaw a rëccu lu ñu jaayee xaaj hôpital bi ndax dinañ obligé fi ñu jaay noonu bu fekkee hôtel moo fay nekk dañ obligé jël ay malade dugal fa te bu boobaa génération yi di ñëw dinañ ne ah hôtel yii de ndekete ci hôpital bi la bokkoon moom lañ jël jaay ko léegi instant yi dinañ obligé jël suñu poos fay hôtel yooyu pour mën fa denc ay malade donc loolu nekk na situation boo xam ne buñ ko xalaatoon xëy na duñu duñu jaay hôpital bi euh, xaaj hôpital bi noonu. léegi yéen ña fa nekkoon di ay médecins interne nee nañ 73 médecins euh, internes yu hôpital euh, Aristide Le Dantec ba léegi dañu am ay jafe-jafe pour daal pour seen affectation est-ce que problème boobu réglé nañ ko waaw wala déet fu ngeen si toll. waaw problème bi ñoo ngi jot note d'affectation yi njëkk waaye yëpp génnagul am na ñoo xam ne ba léegi. Mhm. affecté guñ leen ñoo ngi toog seen kër yi nekk en chômage technique. muy muy muy loo xam ne lu métti la ndax médecin yi moom bu demee lu ko war a toogloo këram congé la war a nekk wala ay ay ay jafe-jafe ci feebar ak yooyu. Mhm. mais dem ba nga xam moom disponible na pour faj mais. décision bi nguur gi jël pour tëj hôpital bi moo waral ñu dem chômage loolu lu lu ñuy déplorer lu doy waar en tout cas luy xaw la loo xam ne nekkul lu rafet si réew mi. kon ba léegi mais ban ban ban euh, ñaata médecin euh, ñoo dem ñaata ñoo des ak tamit ban explication la leen autorité sanitaire yi daal di jox par rapport ak seen affectation wiir yi. waaw au au départ 73 internes la ñu woon. toog nañ lu ëpp ñaari semaines yoo xam ne kenn jotul note d'affectation ñoo ngi ñoo ngi doon toog di xaar léegi ñaari semaines yi bi mu weesoo ci lañ commencé gis ne autorité bi mu ngi génne ay note d'affectation pour ñenn ñi waaye am na ñeneen ñu des ñoo xam ne ba léegi amuñu note d'affectation explication autorité bi nag daf ñu ne rek moo ngi en cours waaye pareegul léegi léegi léegi si si condition de travail euh, est-ce que condition de de travail est-ce que euh, mat na pour ngeen mën a woy continuer seen liggéey euh, ak ak ak ak fermeture hôpital Dantec. waaw condition de travail moom métti na ndax boo xoolee pour interne yi ñaari logement lañ amoon Sénégal yëpp mooy hôpital Aristide Le Dantec te moo ëppoon lu muy jël sax si ay logement pour interne comme tëj nañ ko léegi Fann kese moo ñu dese comme logement te Fann bâtiment bi nekk na si état bu doy waar bâtiment bi yaaxu na bâtiment bi yàgg na bâtiment bi soxla na defaraat logement étudiant et université yi sax moo gën a présentable logement médecin interne Fann te ñun médecin interne yi fiy logé université lañ jóge loolu xam nga yéen wul maana kon ñoo ngi ñaan ministère voilà direction hôpital wala ministère wala monsieur le président de la république mu gëstu médecin interne yi nekk hôpital Fann tabaxalaat leen seen bâtiment bi. kon daal li tax ñuy wax médecin interne condition yi réunirul parce que euh, lu ëpp si yéen mënuñu loger si biir hôpitaux yi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee te yaa may wax ne loolu sax mooy point fortu médecin interne. exactement exactement comme comme ni nga ko déggee médecin interne. Mhm. si biir hôpital la war dëkk. dans les règles. léegi nag dans les règles dans les normes. wala bu ñu sori hôpital fekkee ni hôpital bi. Mhm. amul ay logement si biir dina fay médecin interne benn indemnité de logement fu mu mën a dëkk à côté waaye indemnité yi dañoo remarqué yi ñu leen di fay mënatul permettre ñu am logement tax à côté ndax ñëpp gis nañ ne Dakar wàllum logement daf fi trop ba nga xam ne dañuy am sax ay jafe-jafe pour mën a fay logement ñi nga xam ne te hôpital yi ñenn ñi nanguwuñ tabax ay logement pour interne. bu ma la déggee euh, docteur Assane Diouf maanaam euh, médecin interne yi seen payoor baaxul. seen payoor ñu ngi ñaan en tout cas ñu yokk ko. Hmm. du ñu wax ne baaxul du ñu wax ne baax na mais pour ce qui concerne les logements. Hmm. yi nga xam ne moom lañu ñu leen war a jox joxuñu leen ko. Hmm. parce que ci biir déjà logement yi yi nekk fan rek doyul pour interne yi nekk fan ñenn ñi dañuy obligé di jóge fu sori wala ñi fay lu cher. pour mën a dëkk à côté ndax xam nañ logement fii ni mu méttee donc logement yi déjà doyul assez un beneen bi mooy logement yi fi nekk baaxul yéen même bu ngeen ñëwee ñëwalee seen bopp di ngeen gis liñ leen di wax ci logement fa logement interne yi Mm-hmm. dara baaxu si euh, peut dernière question muy plateau médical euh, défectueux bi ñuy wax ni sax euh, moo tax médecins yi mënuñu def seen liggéey normalement ak système sanitaire bi tey jii loo si xalaat docteur Assane Diouf pour defalaat système sanitaire bi fii si Sénégal. waaw pour defaraat système sanitaire yaakaar na laaj na ñu def concertation concertation bi nag il faut ñu invité si acteurs yëpp que ça soit décideurs yi ministère que soit acteurs yi en tant que tel médecin yi faj sage-femme yi infirmier yi ñëpp ñu toogaat ci benn table waxtaanaat ci wàllum santé bi ndax yaakaar naa bu fekkee beddi nañ kenn rek te affaire bi comme chaîne la ku nekk am nga si njëriñ donc ku nekk daf si war a joxe xalaatam pour ñu mën a am système de santé bu baax. kon beneen bi mooy santé bi dafa nit ñi dañuy am jafe-jafe pour am lu ñu fajo parce que yenn hôpital yi parfois dafay dafay dis si si malade ndax xam nañ ne réew mi nekk amuñu doole loolu aussi war nañ ko gëstuwaat bu baax pour jàppale nit ñi ñu am luñ fajoo tuwaat ñu xalaat ci ay système de financement de la santé nit ñi def ba nit ñi am prise en charge ndax nit ñi dañu am jafe-jafe lool pour mën a am luñ luñuy ñuy fajoo gis nañ fi ay malade yu ñuy séquestré si hôpital yi ndax amuñu luñ fayee yooyu yëpp ay ay mbir la yu am yoo xam ne dëgg yàlla soxla nañu ñu toog xalaataat si pour que système a baax. voilà docteur Assane Diouf euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf maa ngi leen sant di leen gërëm si invitation. may fàttali docteur Assow président bu association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal.